salaamaaleykum mbokk internet Pexxe TV ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox benn xibaar ba nga xamante ni am nañ ko ci diggante kii di Balla Gaye 2 ak Bombardier li fi jot a xew yëpp ginnaaw bi Gaston Mbengue tëggee komba bi ci signature ci face à fas jox ku ci nekk avance am mu dem ca ay mbokkam ngir waajal boppam samedi bii di bës bu njëkk ci atum 2022 gis nañu ni ñaari mbër yi ku ci nekk wane na jom fulla forme cawarte ak engagement ci biir stade bi di arène nationale laataa ñoo sëgg di bëre. waaye ginnaaw bi arbitre bi sifflé daal di génn ci diggante ñaari mbër yi la ñu gis fale ci stade ba ci diggante Bombardier ak Balla Gaye 2 amateur lamb yëpp naqarlu nañ ko. combat bi fi mu mujjee gis nañ ko moo di arbitre bi dafa jël ndam li jox ko kii di Bombardier ginnaaw bi mu amee quatre avertissement ci kaw Balla gay 2 bi am cinq. naka noonu Bombardier daan na Balla Gaye mu nekk ñaareelu ndamam ci kaw kii di doomu Double Less bi comme ni ñu ko doon waxee 2-0 wala 1-1 waaye gis nañu ni combat bii mujj na doon 2-0. ci xibaar yi nga xamante ni jot nañu ko Balla Gaye 2 mu ñëw stade dafa amoon blessure bu mu jëlee woon ci contact ya mu doon def pour wàccaayu combat bi te blessure boobu la Balla Gaye 2 bëree tey ji ak bombardier. li nga xamante ni jot nañu ko ci ay réaction jóge ci ñiy yeewoo Géejawaay mooy ni Balla li mu def. waru ko woon def ci jël yu mu jël combat yu diis te tegloo bokk na ci digganteem ak bombardier mi ko daan tey Eumeu Sène Boy Niang ak Gris Bordeaux ndax bu ñu seetloo ñoom ñëpp kenn ku ci nekk bu defee liggéeyam comme ni mu waree ci digganteem ak Balla Gaye ngir am ndam ci kawam bu moytuwulee Balla Gaye du am benn ndam ñetti kombaawam yii di ñëw. suñu jógee foofu li ñu gën a seetlu ci ay réaction mooy Balla Gaye 2 xaalis la gën a jiital que làmbam ginnaaw bi mu jëlee ñeenti combat yu tegloo mu doon mbër bu njëkk ci Sénégal bi ko def. fi ñu koy jeexalee ñu dem fële ca pikin combat bi nga xamante ni ñoo ngi doon laam-laamee dina amam du am ci diggante Balla Gaye ak booy ñaa tey waa pikin mën nañu am yaakaar ne booy Niang su defaruwaatee mën na am ndam ci kaw Balla Gaye 2 bi ñu gis tey. mu wute lool ak Balla Gaye bi ñu gisoon contre Yékini gis ko contre Modou gis ko itam contre Tapha Tine tey Balla Gaye bi ñu gis dafa mel ni ku bëri ak ku ragal ñu daan ko waaye mën nañu njort ni blessure bi mu bëree moo waral lii yëpp ci noonu dig daje beneen yoon incha allah jërë ngeen jëf.